jàng naa it li sama xam-xam toll ma yem ci. naa itam li sama xam-xam toll ma yem ci. sama baay daf sama baay daf ma doon wax ne soo jàngee ba pare nga ñëw nga jàng ma. bi ma ko jàngee ma ko jàngee itam mokkal naa. looloo ma yóbbu ci baay. mu ne looloo indi yóbbu ci baay. ndax sama papa moo ma ndax sama papa moo ma dénkoon Mouhamad Nazir mu yor ma ci mahatu Alhaji Abdoulaye Niass. wax Tijaan dama ko yàlla tere. su ma mosaan wax Tijaan dama ko naan yàlla tere. ndax man sama mbokk yëpp Touba lañ dëkk man murit laa woon. Mouhamad Nazir Tijaan la ma daan ooyee. Mouhamad Nazir la ma daan woowee. dama ko naan yàlla tere. waaye wallaahi su ma ko mosaan a wax dama ko naan yàlla tere. mu ne ma yow ku la gis sax xam ne tiijaan nga. mu ne ma yow ku la gis sax xam ne tiijaan nga. mujj na moom waxoon mujj na moom la mu waxoon am. ma toog ba Faas waa Faas yónnee ma ñaari ma ba Faas waa ma ñaari ijaasa. te fekk na mosuma faa faa dem. taf loolu moom am na seede ñu bari fekkee nañ ko mu ne ijaasa bu njëkk bi wan naa ko ñu bari wan naa ko ñu bari ñu bari yëg nañ ko ndax bis biñ koy indi loolu daanaka feet ñu bari itam yëg nañ ko ndax bis biñ koy indi daanaka feet la woon waaye ijaasa ñaareel bi moom dama koo nëbb woo naa ñenn rek wan leen ko bañ gis woo naa ñenn rek wan leen ko bañ gis ko waaye maam nëbb ko ndax boo ko feeñalee. ndax boo ko feeñalee. ndax boo ko feeñalee. day mel ni bëgg nga leneen wala am nga leneen. day mel ni bëgg nga leneen wala am nga leneen. te man baay doy na ma ci lépp. mu ne bëgg ku ma bëgg Baay Ñas moo tax ma bëgg Kaolack yóbbu na ma sax ci ragal a tukki yóbbu na ma sax ci ragal a tukki ndax damay ragal tukki fu sori dee fa ñu may suul ndax damay ragal tukki fu sori dee fa ñu may suul feneen fu dul te suuf si moddu jëmmi Cheikh Ibrahim laa bëgg moom suuf si moddu jëmmi Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu laa bëgg mu moddu sama jëmm ji moo tax bëggumaa dem fenn bëggumaa dëkk fenn fu dul mu baax ma mu ne sëriñ Fallu Mbàkke mu baax ma daan na wax ne ñeena waa Kaolack daan na wax ne ñeena waa Kaolack ñu ne ko Mbàkke tax ñu ne ko Mbàkke lu tax mu ne damaa gis rek ñu yenu ay saako boros dugal biir Kaolack mu ne damaa gis rek ñu ay saako boros di ko dugal Kaolack mu ne loolu nag waxi enrif de alam bi fu nekk la nit di bàyyeekoo di ñëw mu ne alam bi fu nekk la nit di bàyyeekoo di ñëw Kaolack xeet wu nekk ñu ngay ñooñu joxe ji seen bopp Medina Kaolack di xeeñtu banab Cheikh Ibrahim di xeeñtu banab Cheikh Ibrahim mu ne kon bu ñu ko yàlla mayee nañ ko sant yàlla jataayu Cees bi mu ne jataayu Cees bi dana mos a gën a rëy nii de dana mos a gën a rëy nii de que ñi koy parce que ñi koy organiser dañoo dëggu lool te jikkoy Baay Faal lañu yore te ñoom jikkoy Baay Faal lañu yore kër sëriñ bu nekk nag mu ne kër sëriñ bu nekk nag boo ñàkkee ay taalibe yu am jikkoy Baay Faal perte nga mu ne lan mooy jikkoy Baay Faal mooy ñi nga xam ne luñ liggéey jox la sa ndigal rekk la ñuy déglu loo tere duñ ko jege soo toogee ci kaw ñu toog ci suuf gën la fuuf di barkelu ci yow yàlla fit ba ñu ragal la. yàlla def ci ñoom fit ba pare ñu ragal la. mën a dékku malaaka yi te attanuñ sa loxo. ragal sa mer. ragal sa itam. bëgg sa mbégte foo toll. mu ne taalibe noonu lay mel. mu ne Baay Faal ñoom noonu lañ mel. mu ne fii nag kër Isaa. ñi ma fi fekk si yéen ñi ma àndal fekk si leen xam ngeen ni ñi ma fi fekk si yéen ñi ma àndal fekk leen fi xam ngeen ñin mel. jataayu jullit ngeen mu ne jataayu jullit ngeen fii jataayoo. ay ndaw ay ay ay ndaw rekk ñoo fi daje depuis ci suba ba léegi xetu poon xeeñu fi mu ne loolu rekk jar na sant yàlla am na ñeneen mu ne am na ñeneen ñu ngi dajale ay ndaw ak i mag i ak i ñu ngi dajale ay ndaw ak i mag ak góor ak i jigéen soo leen jubee soo leen jubee xetak jahannama rek moo lay xeeñ dara lu baax du fa jolli dara lu baax du fa jolli te ñooñu itam ay nit leen comme ñun rek mu ne kon ñun lu ñu may loolu bëgg giñ bëgg bàyyi bëgg aw yoonam itam yoonu bàyyi mooy yoonu sama mooy yoonu sallallahu alayhi wa sallam yoonu bàyyi mooy yoonu Seex Ahmed Tijaani mooy yoonu itam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ci borom wax na sànq ne bàyyi moo waxal boppam ne moo mu ne léegi ci borom discours am na ku wax ne baay moo waxal boppam ne mooy xalifa yonent bi itam mooy xalifa Seexu Tijaani même bu ko waxutoon moom la même bu ko waxutoon itam moom la fi ñu xamalee ne moom la du lu ñuy bind ci ay téere fi ñu xamalee ne moom la du lu ñuy bind ci ay téere dëgg la naam ay téere jàngale ci fànn bu nekk dëgg la na bind na ay téere jàngale ci fànn bu nekk. waaye lim ñuy jàngale mooy yonent bi newul ci téere de. waaye lim ñuy jàngale mooy yonent bi newul ci téere de. lim ñuy jàngal ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane newul ci lim ñu jàngal ne mooy Cheikh Ahmed Tidiane nekkul ci téere. téere yim bind itam téere yim defar ko ëpp. téere yim bind itam téere yim defar moo ko ëpp. ndax ndax téere yim bind. kàggula yu am ñaari lef kàggula yu am ñaari lef ñu koo lim nga mën koo lim waaye téere yim defar waaye téere yim defar mooy taalibe yi ko topp mooy taalibe yi ko topp kenn ku nekk rek téere nga ñaal baay kenn ku nekk rek téere nga ñaal baay am na benn wali yàlla dañ ko wax ne lu tax yow binduloo téere mu ne sama taalibe yi ñooy sama téere yi koo ci xool ci ñoom rek mën ngaa jànge ci ñoom lu la defar kasaalika Seex Ibrahim taalibeem yi ñoo jëmmal ñoo jëmmal lislaam ci fànn bu ne bu fekkee ne jaar nañ ci yoon bi mu ne wax naa sërif sànq ne ko lislaam tijaani la sant tijaani sant ndax bàyyi moo wax ne fépp bu lislaam egg ba àgg ndax bàyyi moo wax ne fépp fu lislaam yegg tarixa bii nii di tarixa tijaan yegg fa sama faydu bii dina fa yegg mu ne lim la bëgg a wax mooy tariqa bi mooy diina lislaam inna diina indallahi lislaam te lislaam dara du ko sukkandikoo lu diine rek jëm ci moom te itam dara du ko sukkandikoo lu dul diine rek jëm ci moom mu ne te loolu dëgg rekk lay nekk itam mu ne tariqa tijaan bii moo jëmmal diinal islaam mooy yéeguwaayu jëm ca yàlla mu ne Seex Ahmed Tijaani mi yàlla wàcce ko ci moom sax moomu ko yonent bi nga xam ne nii moo ko ko jox sax moomu ko ñun ñépp ñoo ci bokk yem. yoon la wu bàyyeekoo ci ñoom jëm ci yàlla subhaanahu wa taala waaye nag oto buy départ faaw mu départee ci gaar buy taxaw itam faaw mu taxawi ci gaar mu ne moo tax gaar bi départ bi mooy Seexu Tijaan escale bi mooy yonent bi terminus bi mooy hadratul qudsi mu ne gaal gi leen di yóbbu mooy Cheikh Ibrahim képp ku soobu rek xegg ci yàlla ku naw sa waay ba jéggi ko fi ku naw sa ba jéggi ko fi nar ngaa am coow waaye doo egg ci yàlla moom mu ne te yàlla dafa waxoon ne wa maa xalaqatul jinna wal insa ilaa li yaabuduuni binduma nit ak jinne lu dul rekk ñu jaamu ma boo demee ci ruuxul bayaan yi ilaa li daf naan ay yaxrifuuni jaamu jaamu yàlla daal xam yàlla rekk lay firi ndax mënoo ko jaamu fekk xamuloo ko mag ñi nag wala wala yu bari sax laay wax ndax mag moom mu ne mag ñi nag wala sax borom at yu bari yi laay wax ndax mag moom mooy ko xam yàlla soo waxee mbiram xam yàlla dañ lay wax ne barki démb nga judd suñ kanam sa ndey nàngam la sa baay itam nangam la barki mu nga fi juddu mënoo fee wax luñ xamut mu ne fàtte ne ne Isa alayhi salaatu wasalaam yonent yàlla la woon biñ tuumaale yaayam yaayam daf ne laaj leen liir bi mu tontu leen waaye itam liir bi tontu leen dëgg foofa liir ba liir ba moom moo fa jàngale suñ jàngee ci xisa Seydina Muusa alayhi salaam bim juddoo bim juddoo moom moo wax yaayam ne ko dugal ma ci biir cin bi bu yaayam amutoon ngëm ak mën a gëm waxi gone du ko topp ci wax jooja mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam bi muy woote quarante la am fala fekk aboo lahab mi baayam ak ñoom aboo taalib ak habbaas ak xamsatu ñoom ñépp ñoo ko mag waaye ñi ci yàlla dimbale. waaye ñi ci yàlla dimbale ci ñoom. ñoo ko gëm topp ko. ña ko weddi woon itam dañoo alaku ñoom ñépp dem safara maam Mor Jaara mu ne maam Mor Jaara mi ma lay wax sama maam. li tax mu yéex am ngëneel ci yoonu murit. ci yoonu murit. dafa yéex a gëm Serigne Touba du mu tuut la ko doon woowee ndax moo ko doon jàngal itam moo ko mag yaakaar na mbir mi jàngale ak xam-xam déedéet ngënalal yàlla rek la joo xam ne yàlla moo koy jox képp ku ko soob te joxoon na ko ko mu ne moom Serigne Touba moom moo wax ne laysa muxtasar inna fadlallahi laysa muxtasar yu'ti man yashaa'u min albasar yu'ti man yashaa'u min albasar mu ne ngëneel li yàlla yor di ko joxe kenn du ko tànnal kim koy jox moom yàlla mooy set ki ko neex rek mu joxal ko boppam waaye waaye su ko joxee gërëmal ta nga nangu alkande wees wut fekk yàlla taxalab tax ba pare nga ne danaa ko fay soo moytu mu suul la ba pare xambee la taal bi yàlla na yàlla may ñu dégg ak topp amin yaa rabbi mu ne yàlla na yàlla wéral mboolem jaam yàlla yi yàlla na yàlla wàccee jàmm ci suñ réew mi ak peggi réew mi yàlla na yàlla wàccee jàmm ci njiitu réew mi ak ñooñ réew mi ñépp ñu ko dëkkee amin ya rabbi yàlla na yàlla teggil ñu mbas ñàkk ak ràgg yàlla na fi jóge te bum fi dikkati bekkoor ak mbay mu nanguwut ak jigéen ju jaasir yàlla bum fi amati yàlla na yàlla may ñu njaboot gu rafet te baax te barkeel mu ne mbaax giiñu yàlla may yàlla na yor jikkoy ràmm mu ne mboolem jàngoro yi mën na laa dal benn yoon ci sa dund te bu dikkatee dootu la mën a ràmm wàll mu ne waaye ràmm moom boo ràmmee tey faju suba gannaaw suba boo jegewaatee ku ràmm mu wàndaat la mu ne kon mbaax gi ñu yàlla may yàlla na yor jikkoy ràmm mu ne kon lim bëgg a wax mooy yàlla na ñuy wàllante ak ak mbaax amin yaa rabbi mu ne te wàllante mbaax mooy fexe ba sa ayibi morom yi nga nëbbu ko suturaal leen mu ne yonent bi sallallahu alayhi dafa wax ne koo xam ne uññi nga awraay sa moroom buy jullit yowmal yàlla dana uññi sa sutura yow tamit te loolu mooy firi ngay uññi ayibi nit ñi mu dellu wax ne képp koo xam ne suturaal nga jullit mooy yowmal qiyaam yàlla dana la suturaal mooy boo xamee ayibu jullit nanga ko ko nëbbal su yowmal qiyaamee nag ndëng goo mën a yóbbuwaale rek yàlla dana la ko nëbbal na ngeen fonk seen dëkkandoo mu ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne jëf ji rafet jëf ji rafet jëme ci say dëkkandoo jëf ju rafet jëmale ko ci say dëkkandoo. firiwul nga bañ leen a nga bañ leen a lor. waaye li muy firi. mooy ñoom suñ la loree yow nga muñ ko. mooy loolu. mu ne loolu. ñëw na ci ruuxul bayaan bu baax a baax. ñëw na ci ruuxul bayaan bu baax a baax. Seydina Hassan. mu ne Seydina Hassan. maam maami waa jii toog dafa dëkk ak benn yahut dafa dëkk ak benn yahut bi di xelleeku ndoxam sobe bi ci biir bi di ndoxam sobeem mi ci biir kër Seydina Hasan Hasan di ko nëbb rek bi sa ñëw ci jabar yahut bi dem kër Assane ñu dem di leen ndokke ba benn bés rek jabaru yahut bi ñëw ci kër Assane di ko nuyu di leen ndokkeel ñëw gis ne ñoom seen duusi kër kër mi ngi walangaan ci gis ne ñoom kat seen duusu kër gi mu ngi walangaan ci biir kër Seydina Assane ba mu ñibbee ne haa jëkkër ji man de tey musiba balaa gis ci suñ dëkkandoo yi mu ne ko lan la mu ne ko suñ duusi kër gi yëpp dafay wallangaan ci kër Asan mii yahud bi daal di daw ñëw ci kër Asan nuyoo ñu fay ko mu ne ah Asan lii moom kañ la ah, mu ne ko ah lii moom yàgg na de lu tax waxuloo ma ko mu ne ko dama la koy bañ a wax di la lor ndax su ma la ko waxee man nga cee jëlee kersa mbaa nga jëlee ci lu la naqari te man sama maam mii yonenti daf ma wax ne bu ma lor sama dëkkandoo te ma ragal laa lor sa xel ci sa xol yahut bi xam nga nu mujj def dem defar duusam ba pare ñëw tàllal loxo asan ne ko ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah diine juy dindi bañante ak lorante ci kaw suuf duma ko gis xam ko ba pare di ko fa bàyyi mu ne kon ndax jullit ñi war nañoo lorante léegi alal li bàyyi seex mi yoroon micro bi doon wax sànq nit ñaa ngi yàq seen bopp di reyante di wax di def lu ñaaw jaay seen ngor ngir alal mu ne léegi bàyyi seex mi yoroon micro bi mu ngi wax ne nit ñaa ngi sànq seen bopp di jaay seen bopp di def lu ñaaw ngir alal rekk xanaa jànguñu aaye boobu yàlla di wax ne wa kullu shay'in haalikun ilaa wajhihi waxaat nañu beneen yoon nañu kullu man alayha faanin wax nañu tamit ne kullu nafsin saa'iqatul mawt suuf kon ku ne war naa ragal jëf ju ñaaw ci kaw suuf ba pare wan ko gannaaw mu ne dee leen jëf jëf ju rafet jëmale ko ci seeni dëkkandoor te mooy ñun ñi bokk réew mi nañu rafetoo xataa doxandeem bu la fekk si na nga rafetal jëmale ci moom mu ne doxandeem boo ko xamul mooy étranger mu ne lislaam xamul doxandeem moom boo waxee baati seede yi ma wax ko rek nekk nañ ay mbokk al muslimu aquhul muslimu jullit daal jullit rekk mooy mbokkam mu ne kon nañuy rafetoo mu ne dinaa leen indil benn lépp yonent ko nettalil benn waay ne ko dafa digal benn waay ne ko ci gént. soo yeewoo loo njëkk dajeel na ko lekk. soo yeewoo loo njëkk a dajeel ko lekk. lu ca topp. lu ca topp. na ko suul. ko suul. lu ca topp. li ca topp. bul ko naaguloo. ko naaguloo. lu ca topp. li ca topp. bul tas bul tas yaakaaram. li ca topp. ca topp. nanga ko daw waa ji yeewu daje ak benn montagne bu yem ni jabalu uhud daje ak benn montagne bu yem ni jabalu uhud yal na ngeen dem màkka amin yaa rabbi su ngeen fa demee rek di ngeen gis jabalu uhud ni mu toll toll na ni building administratif mbala mu ëpp ko waa ji mu ne ah man tu waxoon na ma lu ma dajal naa lekk lii ma dajal mun naa ko lekk waa ji ne ah man de yonent ci waxoon na ma ne su ma yeewoo lépp lu ma njëkk a dajeel naa ko lekk ndax lii ma dajeel muy xeer bi mën naa koo lekk waaye naa wéyee ndigal ko rek waaye naa wéyee ndigal ma jublu ko rek lu mu dox gën jege doj bi lu dox rek gën a jege doj bi doj bi gën a tuuti lu mu koy gën a jege mu gën a tuuti bàgg ci moom mu toll ni benn tip ba ci moom mu toll ni benn tip mu ko seex mu for ko mu mel ni lem buñ boole ak meew mu mel ni lem buñ boole ak meew sedd lool neex lool itam mu ne kawteef doj wii de fi mujj neex na ci man mu doxaat tuuti daldi gis satala boo xam ne wurus lañ ko liggéeyee ak nit buggee alal mu ne ah satala bii dan maa waxoon naa ko suul mu gas ko suul wan ko ginnaaw mu sulleeku mu gasaat suul wan ko gannaaw mu sulleeku ba ñetti yoon mu jéggi ko dem mu dox tuuti gis benn picc buy mu dox tuuti gis benn picc buy naaw dem ci si moom ne ko làq ma yow waayu yàlla bi làq ma yow waayu yàlla bi kon waru ko naaguloo gannaaw si ut na ci moom ndimbal daf ko war a protéger mu làq picc bi benn baax maanaam li ñuy wax ci benn aigle naaw ñëw ci waaji naaw ñëw ci waaji ne ko picc moomu nga làq moom laa waroon war a añee tey ne ko picc moomu nga làq moom laa waroon a añee tey bul tas sama yaakaar ñetti fan a ngi nii lekkuma ma dàq picc mi mu ñëw ci yow yaa ko làq jox ma ko ma lekk ko te waxoon nañ ko ne ku wut ci yow ndimbal nanga ko làq bul ko trahir picc mi bëgg na ku ko làq picc mi bëgg na ku ko làq aigle bi itam bëgg na lum lekk ku nekkan ko laaj wàllam ci boppam mu daldi dagg ci poojam moom waa ji dogu yàpp bu ëpp picc mi jox ko aigle bi na ko lekkal aigle bi daal sant yàlla lekk ko dem yoonam mu génne picc mi ne ko naawal yàlla may na la mbax mu doxaat tuuti daal gis mu doxaat tuuti daal gis menn mbedd daal daw baqet gi xeeñatu ko mu yeewu mu dem na yonent bi leeralal ma sama gént gi yaa rasulallah nettalil ko itam lim gént xëy gis ko mu muur la ba gis sa kanam mënoo gis sa gannaaw mënoo gis sa ndeyjoor mënoo gis sa càmmoñ mu ne ko doj bi nga xëy gis ko mu muur la ba mënoo gis sa kanam ak sa ginnaaw sa kana sa ndeyjoor ak itam sa càmmoñ mu ne ko loolu mooy mer jullit dafay moytu ni ku mer gannaaw bu meree itam bum ko jàpp mu ne te soo meree dootoo gis sa kanam itam doo gis sa ginnaaw waaye mën ngaa def lu bon dootoo gis dootoo dégg da ngay tëx gumbalu mu ne kon na ngeen moytandiku mer soo meree na nga muñ boo muñee mujj muñ googu noonu dafay mujj neex ba nga xam ne muñ moo gën fejal sa bopp mer <coughs> mu ne ko jëf ju mu ne ko setal wurus bi nga gisoon mu ne la suul ko mooy jëf ju rafet dëkkeel di jëf-jëf ju rafet jëmale ko ci jaam yàlla yi am na ko wax Baay Raxmaan léegi na ko bañ bañ bëgg la amoon na contre parce que xamuñu ko woon dëgg la amoon na ay contre parce que xamuñu ko woon waaye bi nga xamee ne jëf ju rafet rekk lay def ñoom ñoo mujj waxtaanee ko xam ne lu baax la rek ñu ñëwaat fekk si ko ànd ak moom nekk xaritam jëf ju rafet boo koy def du suulu mukk yàgg-yàgg dafay feeñ mu ne waaye gën na ci nag nga di ko def fekk yaa ngi ko denc mu ne soo ko nëbbee yàlla feeñal la soo si defee ngistal nag ngistal rek nga ciy am yàlla na yàlla musal ñu ci loolu mu ne kon jëf ju rafet nit ku nekk war na koo saxal ci boppam yàlla na yàlla defal ñu loolu te nangul ñu ko amin yaa rabbi mu ne picc mi daw jëm ci ci yow su nit tiitee su la gisee dalalal xelam su nit ñàkkee itam ñëw ci yow dalalal xelam su nit dawee làqatu la donte la dafa tooñ làqu ko moo gën a rafet lislaam nanguwut mukk nga bottiku la làqu sànni ko donte la dafa tooñ làqatu na la feeg làqartiwul boppam dem amuloo droit di ko laqati di ko sànni. man Macky bëgg naa ko trop. mu ne man Macky sàll bëgg naa ko trop. mere naa ko ci Hissène waaye itam mere naa ko ci Hissène Habré. waru koon a laqarti. ñu di ko fitnaal. ndax yaakaaram la fii ci Sénégal. ndax yaakaaram rek la amoon fii ci senegal daw làqu si fi. donte dafa tooñ. donte la dafa tooñ. lëngut ko moom te tooñ gi lëngut ko moom kenn. Idriss Déby fexe bañ atte mu ne Idriss bi mii fexe ban atte ko. moo Hissène Habré ñoo bokkoon di def lañ doon def. mu ne loolu war nañ cee sedd xel bu baax a baax. mu ne man d'accorduma ci jàpp gin jàpp Hissène Habré. ba pare bàyyi de bi mu ne loolu xaalam bi yëpp ñu ngi koy seetaan foog ne àtte neen dëgg waaye wallaahi alquraan nee na alaysa laahu bi ahkamil haakimiina ndax yàlla du attewaat ñi nga xam ne ñoo doon atte fii ci kaw suuf te ñoom liñ atte man rafetluwuma ko te duma ko rafet lu nag ba mukk ci àdduna mu ko xob bi mooy firi yelwaankat ñëw ci yaw mooy firi yelwaankat ñëw ci yow. mbaa ab géwél ñëw ci yow. mbaa ab géwél ñëw ci yow. mbaa woyaankat ñëw ci yow. mbaa góor gu ñàkk dépense ñëw ci yow. mbaa naxekat bu ñëw ci yow. bëgg a jël ci wërsëg wi la yàlla jox tam ëpp la. lépp lu mu wax rek nga ne daf ma bëgg a nax. yow joxe rek te yàlla tax. lexal ko te yàlla tax. wax ne. mu ne dama lay wax ne. géwél du topp ku bon. du topp ku bon. loolu na mu ne loolu moom na ko nit ñi xam. Serif. mu ne Serif. du topp ku bon. mu ne mbàkke mbàkke. du topp ku bon. waati waawa ni sant si. si mu ne waati waawa ni sant si. duñ topp ku bon waaye itam waruñoo liggéey ndax ñoom li ñuy tiitaroo ci seen loxo la jaar ñëw ci ñun kon ñun war na ñoom buñ ñëwee ñu teral leen ci li ñu yàllay wërsëgal waaye ku la nuyu si rek nga ne daf may nax te bëgg di nax yow mu ne loolu rafetul de mu ne dee leen maye di di joxe ci wërsëgu leen yàlla jox di jàngale ci xam-xam bi ngeen am di suturaal nit ñi mu ne su ngeen ko defee njanaaw lu ñaaw dëkk ci yenn tàllal leen gémmiñam di ngeen am lu ngeen ko jox mu ne loolu mooy firim eegal bi mu ne medd mi nag mooy mu ne ko mooy barab bu ñuy jëwee fépp foo dem fekk ñu nekk ci darab nit. fépp foo dem fekk ñu nekk ci darab nit. soo leen mënul noppiloo. soo leen mënut noppiloo. dawal dawal. mu ne loolu nag suñ mbokku jigéen ñi ñoo ci gën a foor rawatina aawa yu ndaw yi. suñ demee ci xew yi. la wasin wa sol la njëkkee la sol ndax gis nga diwoom loolu rekk moo leen fa di yóbbu ah, yow kay li nga sol sax yaa daane wasin wi yow kay li nga sol sax yaa daane wasin wi bu dee wujju njëkk jigéen balaa dem ca day xaar ba xam ne wasin wi sol bu dee wujju moom balaa dem ca xew la day xaar ba xam ne wasin wi sol mu bañ wax ko mu dem sol lu ko gën a mu laaj leen lum doon bañ wax ko ko mu dem ut lu ko gën a foor sol ko yooyu yëpp yëfi jigéen mu ne yooyu yëpp wax yëfi jigéen la mu ne képp ku ko ci def na ko bàyyi loolu baaxul mu ne jëw moom ku koy def rek def nga lu baaxut te yàlla rëbb na ku koy def waliyasu billah amin am na beneen lépp mu ne am na itam beneen lépp ci fecc kóllëre ci fecc kóllëre ak tas yaakaar ak tas ak kañaan ak benn jaan mu ne dafa am benn jaan dem ci benn kër di fa sàcc ay nen dem ci benn kër di fa sàcc ay nen borom kër gi gis ko dàqe ko ak yet bëgg koo rey mu dawa dawa daw ba dem ci àll bi fekk benn baykat mu ne baykat bi dimbale ma yow mbokk mu baax mi nga làq ma baykat bi ne ko kaawteef nu may làqee jaan mu ne ko damaa am ci yow yaakaar te boroom yet wee di ñëw su ñëwee fekk ma fi daf may rey mu ne ko mbaa dooma wor mu ne ko gëñ naa ci yàlla mi ma sàkk-sàkk la duma la wor mukk ci àdduna waa ji daal di def mbubam nii na ko kon duggal fii mu ne ko kon bu waa ji ñëwee bu la yëngalee nga daanu ma daanu daf may rey mu ne ko kon nu ma lay làqee mu ne ko dangay ŋaan ma dugg ci sa gémmiñ gi dugg ci sa biir bi tëdd waa ji na ko aa jaam mbaa dooma wor mu ne ko wallaahi duma la wor gëñ naa ko ci yàlla mi la sàkk sàkk ma duma la wor waa ji moom gannaaw jaam bi tudd na yàlla rek te moom jullit la gëm na ko mu daldi nga jaan ji daldi dugg ci gémmiñ gi dem ci biir bi tëdd nis tuut rek borom yet wi yegsi ne ko ndax gisoo fii benn jaan mu ne ko gisoon naa ko de waaye réer na dem na mu ne ko ah bu ma ko gisoon dinaa ko rey mu ne ko réer na waa ji daal di wàññeeku ak aw yatam daal di dem ñibbi baykat bi daal di fëgg biir bi ne jaan génnal sa waa dem na ne jaan génnal sa waa ji na mu ne ko xëy yow dof bi mu ne ko xëy yow dof bi xanaa xamoo ne man wut lekk ci lañ ma doon xanaa xamoo ne man wut lekk si leen ma doon bëgg a reyee maa ngi jàkkaarloo sa xol beeg sa res maa ngi jàkkaarloo maa ngi nii jàkkaarloog sa xol sa res yooyu noonu yu nooy yëpp maa ngi jàkkaarloog ñoom man kay balaa may génn di dem fiñ may rayee di ma door ay yet ma yem fii toog fi di lekk kanaan rek. léegi laaj fan laay war commencé ci xol bi laay wala ci wala ci gàddaam ne ko léegi kay man yow yow laay laaj ba xam fan laay commencé ci xol bi wala ci res bi wala ci gàddaam bi fan laay commencé wax ma. waa ji noppi. waa ji noppi. jaan bi fëgg biir bi yow laay waxal muy mënti bi. jaan bi daal di fëgg waa ji daal fëgg biir bi ne jaan ji dimbale ma nga génn yow laay waxal. jaan ji ne ko wax yow fan laay commencé. jaan ji daal di ko wax na ko hey yow mi yor jukkooy dof ni aaw bu mel ni Faat Fay génnal yow laay wax. waa ji na ko may ma tuuti. mu daldi dem ba ci réew benn ron garab mu toog fu wéeru daldi jaaxle lool war a toog rek ngir xaar am foofu noonu rek benn waay benn jëmm wàcc ci kanamam noonu rek benn waay yore jëmm ju rafet daldi wàcc ci kanamam ndeke malaayika la mu ngi yore benn xob bu verte daal di ko jox waa ji ne ko yéeyal gaaw mu yéey mu ne ko wanal gaaw naka loolu àgg ca jaan naka loolu àgg ca jaan ja soppeeku tooke togg ko mu ñor saasi daal di soppeeku ci saasi ko ca saasa mu ñor ci saasi daal di wàcc ci saasi mu wëcc ko waa ji daal di bu baax a baax waa ji daal di sant yàlla bu baax a baax mais alhamdulilahi rabbil alamin jëm ji wan ko ginnaaw bëgg a dem mu ne ko ah waaju baax yow mi ma xettali kay bul dem wax ma ki nga doon mu ne ko man maay njëkk jëf ju rafet ji nga def moom la la yàlla fayee man malaayika laa ndax yow doo fecc kóllëre doo tas yaakaar moo tax baay raxmaan mi itam du fecc kóllëre du tas yaakaar xaritam yi mu amoon bi mu nekkee xale ba léegi ñooy ay xaritam dafa dolleeku kay waaye sànniwu ci kenn mu ne loolu jëf ju rafet la itam jikko ju rafet la yàlla na yàlla may ñu loolu amin yaa rabbi léebi mag ñi mu ne léebi mag ñi da daf lay yokku xam-xam ak mbëggeel mag ñi sax bu ñu daan léebal kumba am ndey ak mag ñi sax buñ la daan léebal kumba am ndey ak kumba amul ndey dañ la ci yaraale mu ne waaye léeb yii ci ruuxul bayaan la nekk dafa lay dimbale bu baax a baax mu ne lépp yoo xam ne yonent bi moo koy léebal aw askanam dafa jara jàng jara xam itam jara xam dana la yokk itte dana la ragalloo itam sa morom mu ne te aarif dafa war a ragal xaam mu ne aarif magasin la buñ duy ba mu fees ñu ubbi bunt yi tàmbali koo utiliser xaam moom magasin la buñ duy ba mu fees ñu tëj bunt yi dara manqué wu ci. adduna bi mu ne àdduna bi. ku la mujjee am bu ndell buy ubbi rek moo ëpp doole ci mujj mu ne adduna bi ku la mujjee am ressource maanaam ndell buñ ubbi rek moo lay ëpp ca mujj ga. Sall gane ji mu ne soo gisee Macky Sall gane ji France. di jël tur Eiffel ak dra def ci drapeau Sénégal. ñu tur ñu jël tur Appel ak pot lampe nekk France yëpp def ci drapeau Sénégal. pétrole bii ak suñ bii rek a mu ne pétrole bii ak suñ koom gi rek a tax. donc donc. Senghor dem na fa defuñ ko. Senghor dem na fa defuñ ko. Abdou Diouf dem na fa defuñ ko. Abdou Diouf dem na fa defuñ ko. Ablaye Wade dem na fa defuñ ko. Ablaye dem na fa defuñ ko. demoon na fa moom te defaluñ ko. demoon na fa moom te defaluñ ko ko. kon bu ñu déggee ne pétrole bi feeñ. kon biñ déggee ne pétrole bi feeñ na. ñu dem fa ñu jël drapeau France drapeau Sénégal drapeau France drapeau Sénégal ba mi daj. ñu jël drapeau France drapeau Sénégal drapeau France drapeau Sénégal ba réew mi daj. na Sénégalais yi yeewu. France doyewuñu dara lu dul exploité ñu dong. France dul exploité ñu rek. jaam rek ak sang lañ seq. jaam rek ak sang lañ seq ak moom. waaye si kaw buñ ko nangoo nag. mu ne dem leen ngeen jàngi. jar na denc sax ressource bi bañ koo laal. jar na denc sax ressource bi jar bañ koo laal. liñ doon dundee ñu continuer ci. dem jàngal suñu doom yi. dem jàngal suñu doom yi. fii ak trois siècle wala quatre siècle maa moom fa yàlla xam dana fekk ñu am xam-xam. fii ak trois siècle wala quatre wala sax fa yàlla xam dana fekk ñu am xam-xam ko mën a utiliser. buñ ko utiliser yemale ko suñu réew mu jëriñ ñu jëriñ suñu réew. waaye buñ toppee tubaab yi niñ def gabon rek lañ ñuy def. tànq ko ba mu jeex tàkk ñu jaxase ñu xeex. tànq ko ba mu jeex tàkk ñu jaxase ñu neen ñuy xeex. buñ leen bàyyiwut. niñ def libi rek lañ ñuy def. niñ def Darfour lañ ñuy def. sàcc alal ji jaxase réew mi ñu xeex. sàcc ji jaxase réew mi ñu xeex. politiciens yi nañu yeewu. réew mi ñoo ko moom buñ ko taal. réew mi ñoo ko moom buñ ko taal. buñ ko taalee suñ bopp lañ ko taalal. te mu ne te xare. ki ak ki not ñëpp ñëpp ki not ak ki not ñëpp perte. ki not ak ki not ñëpp ñoo perte. mu ne kon na nit ñi jàmmoo. te nekk benn. te xam ne Sénégal gi benn réew la benn bopp la. bu ñu kenn dugal ci lu ñuy tax a xeex mbaa ñuy xuloo. nañ jéem yar jikko te nangoo aw ci yoonu dëgg buñ ko defee daneen bokk ci ñu raw mu ne lii tax réew mi jëm kanam mu ci suñ kanam te mooy ñu fexe yaru suñu yaroo dem kanam suñ yaro di koo ak luñ mën a am dañ koy perte ñu ngi wax toujours valeur dañoo perte ay valeur perte valeur perte ñu ngi wax toujours ne dañoo perte ay valeur perte valeur perte valeur. dara indi ko lu suñu yoonu maam yu baax dara waralu ko lu dul rek bàyyi suñu yoonu maam yu baax yi. comme li may waxoon ci njëlbeen yoonu kër goo xam ne réew moo xam moo ko tax. <coughs> mu ne comme li ma la waxoon ci njëlbeen gi rek ne leen réew moo xam ne Cheikh Omar Fouti yu moo ko taal. bambaak alaaji maalik ma alaaji abdoulaye ñu ñëpp feeñ ci maam alaaji maalik ak alaaji abdoulaye ñes ñëpp feeñ seen ginnaaw ndax xam ngeen kenn ku raw ñooñu ci mbaax mbaa lu rafet mu ne ndax xam ngeen kenn ku raw ci ñu mbaax wala lu rafet ndax ñooñu am kenn ku ku ci ndax ñooñu am na kenn ci ñoom ku ci roy tubaab mu kon xam ngeen ne ñun ñu ngi ak ay valeur xam ngeen ko xam ngeen itam ne am neen ay idole xam ngeen itam ne am neen ay référence ñu tere ñun ñii ñu ëlbatiku topp ñooñu jéem a mel ni ñoom te bàyyi tubaab bu bon bii nga xam ne jëm jëmewuñu fenn lu dul rek jëriñooñu yàlla na yàlla gindi ñu amin yaa rabbi yàlla nañu yàlla gindi yàlla nañu yàlla dimbale yàlla nañu yàlla yëkkati yàlla na yàlla muccal Sénégal ak mboolem ku ko dëkkee yàlla na yàlla may ñu jàmm bi jaay rasulillah barke Seex Ahmed Tidiane barke Maolana Seex Ahmed Tidiane barke Maolana Seex Ibrahim ha antum haulai hajattum fima laysa lakum bi ilmun falima tuhaajuna fima laysa lakum bi ilmun wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun ci suratul ali imran la nekk ci isibu qul law nabi'ukum mu ne kon ñu ngi sant yàlla ci loolu nañu jublu ci liñ xam liñ xamut nañ ko bàyyi te liñ xam mooy suñ culture bu rafet boobu suñ maam yu baax yi bàyyi ko fi kon suñu fetteeloo jublu feneen duñu yóbbu ci leneen lu dul perte rek yàlla nañu yàlla may ñu dégg ak topp maa ngi leen di jéggalu mu ne maa leen di jéggalu maa ngi bëgg a sonn ci wax ji maa ngi bëgg a sonn ci wax ji te mun naa am sax wax ma fi luy jëriñ mu ne yàlla xam na ne de xaal moo ma wax loo waaye du man man de mu ne tafaañag mii moo ma wax loo yàlla xam na ne ñi ma dëkkal su ñëwee sama kër rek. mu ne yàlla xam na ne ñi ma dëkkal xam nañ ne su ñëwee sama kër rek. su ma fekkee ma taayal daf may sawar ci saasi. su ma fekkee ma taayal daf may fe day day tax ma sawar ci saa si fekkee ma mer damay kontaan ci su fekkee ma mer damay kontaan ci saasi. su ma narutoon a wax may waxloo su ma narutoon a wax daf may waxloo ci saa si moom dafa xam ndax moom dafa xam sama essence. te mooy sikkurullaahi. yoruma benn kayfiya. mu ne yoruma benn kayfiya. notewuma dara pour lu ma war a wax. notewuma dara itam pour lu ma war a wax. dama ne sama su ma amee su ma waree ma bàyyi la ma bàyyi ne woon Ibrahima na nga toog sama wet su ma demee ba xam kàddu war a wax ma bàyyi la yow nga wax ko. waaye moom mu bañuñu mu sikkarlooñu ba sama yaram tàng mu waxloo ma nii mu ne maa ngi leen di jéggalu ci loolu mu ne su fekkee ne wax ji rafet na ngeen xam ne yàlla la de wala nga ne yonent bi la de wala nga ne seexu tijaani la walla nga ne baay la su dammee as njaam la rek suy jéem wax wax ju rafet wala kuy xam-xam lu ta dara waaye xam-xam moom ci yàlla lay xam yàlla na ñu ko yàlla may amiin yaa rabbi mu ne ndax yàlla bim mu bindee aadama fas ko yéenee jiital ci aalam bi xam-xam la ko lay laytaayalal loolu rek a tax mu raw jinne yi ak malaayika yi léegi nag nit ngay gis muy ñàkk fayda bay dem di toppi jinne fàtte ne ne nit ñi ak jinne yi la yàlla waxoon ne fas juddu li aadama lan moo ko mayoon xam-xam mu ne kon soo buggee nekk njiit na nga jàng na nga xam te itam na nga jëfee li nga xam mu ne yonent wax na ne sallallahu alayhi wa sallam yowmal qiyaam da nga gis ci buntu aljana coow lu bari lool suhadaa yi suhadaa yi ak ñu tabe ak ñu tabe ñuy xëccoo nekk ak borom xam-xam yi ak yi ku nekk ne man maa war a dugg àjjana ku nekk ne man maa war a njëkk a dugg àjjana ku dugg sa morom jàpp sa mbagg na la man dooma ku bëgg dugg rek sa morom jàpp sa mbagg na man dooma jiitu yàlla yebal jibril na demal nga atte ñële mu laaj leen waaw yéen lu ngeen di coow mu laaj leen ne waaw lu ngeen di coow sahid yi ne sahid yi ne ñun ñoo war a njëkk a dugg aljana gaa yi bugg ñoo jiitu ñun ñoo war a njëkk a dugg aljana gaa yi bugg ñoo jiitu mu ne lu la ko may mu ne lu la ko may ci yoonu yàlla ba dee ci mu ne ñun dañoo xeex ci yoonu yàlla ba dee ci bi ñuy suul sax sanguñ ñu. bi ñuy suul sax sanguñ ñu. futtiwuñ suñu yére yi. futtiwuñ suñu yére yi. ji moo nekk suñ parfum bi ñuy xeeñ. suñ deret ji moo nekk suñ parfum bi ñuy xeeñ. ñun kay aljana lañ jëm directement te kenn waruñu faa jiitu. ñun kay aljana leen jëm directement te kenn waruñu faa jiitu. ñu ne ko ko xamal. ñu ne ko ku la ko xamal. mu xam-xam yi. mu ne borom xam-xam yi. ñu ko kon kay borom xam-xam yi ñooy ko kon kay borom xam-xam yi ñooy sa kilifa. li nga jëf yépp buñ la ko toon ñoom boroom xam-xam yi doo xam daraja bi nga am ñëw ci taqiyu bi ñu ne ko yow lu tax ngay xëccoo ak ñi dugg àjjana mu ne man dama daan joxe sama alal ci yoonu yàlla. mu ne man dama daan joxe sama alal yoonu yàlla. dem màkka te aw ma ci ngistal. dem màkka te aw ma ci ngistal. di saraxe di joxe asaka. di saraxe di joxe asaka. lépp lu ma yàlla sant ci sama alal def naa lépp lu ma yàlla sant ci sama alal ji def naa ko ci. ci la bokk. te wax nañ ma ne ñii njëkk a dugg àjjana man ci laa bokk. loo ko ñu ne ko ku la xamal loolu. mu ne borom xam-xam yi. ñu ne ko kon kay amal teggin. borom xam-xam yi ñooy sa kilifa. mu ne yow nag yow yaay kam mu ne ñun ñooy borom xam-xam yi leen doon jàngal mu ne ñoon yéen ñii borom xam-xam yi seen borom nee na ngeen njëkk a dugg looloo waral borom xam-xam yi ñooy njiitu alam bi yàlla na yàlla boole ñu su amin yaa rabbi toogandoo ak borom xam mu ne toogandoo ak borom xam-xam. mu wax la ñaari kaddu. mbaa nga dox ak moom ñaari jéego. wala nga lekkandoo ak moom ñaari tib yowmal qiyaame yàlla dina la may ñaari aljanna benn bu nekk dafay toll ni àddina mu ne kon ànd ak boroom xam-xam lu baax la mu ne addis yaxal na sax ne ànd boroom xam-xam benn waxtu moo gën nga jaamu yàlla junne at liñ ci namm rek nga jëlee ci moom xam-xam mu ne kon na ngeen nangoo jàngu te bu ngeen jàngee ba xam itam da leen jëfee li ngeen xam mu ne bokk na ci kii taxe ëllëg boroom xam-xam bu rafet tey jëfandikoo lim xam ñooñu danañ taxe gi taxoon. mu ne ñaan gi taxoon. alxuraan di wax ne rabbana anzil alayna maa'idatan minas samaa'i takun lana takun lana aayatan li awwalina wa aaxirina wa aayatan minka warzuqna wa anta xayrul raaziqiin yowmal qiyaam lañ koy gis. ci suufu aras. mu ne yàlla dina fa teg benn taabal mboolem xeeti ñam bu nit di gis di ko xemem mboolem xeeti ñam bu nit di gis di ko xemem yàlla dina ko ci teg mu ne xet gu set lañ leen di ker gu sedd lañ leen di keral gëtt gu neex itam lañ leen di gëttal te ñoom dañuy nekk ci ron péeb yàlla bi mu ne ñooñu boroom xam-xam yi ñoo fay toog mu ne kon nangeen fexee bokk ci boroom xam-xam yi mu ne waxoon naa leen ne du ma continuer di leen defal seen jataay yi yar naa leen ba ngeen màgg jàngal naa leen wan naa leen def naa ngeen gis maa ngi bugg a âgé gàcce dana am ci yéen ndax gis ko toog du ko mu ne gàcce dina am ci yéen ndax bis dina ñëw moo kenn ci yéen ko kaay def gàmm gi te duma ko tàggu. su boobaa boo xamul dara ñu xam ne xamul dara ma woo boo xamul dara ñu xam ne xamoo dara ma woo keneen. xanaa lu jullit ñàkk ñàkk fayda war xam taarixu yonent bi wa sallam. xanaa lu jullit ñàkk ñàkk bi sallallahu alayhi wa mu ne ndax jullit warta dox ci réer. réer weesuwut nekk fanatique di topp loo xam ne am loo xam ne ci mu ne réer war weesuwut nag nga nekk koo xam ne fanatique nga topp loo xam ne amuloo ci benn xam-xam. Baay daf ne xam-xam xaw ma bokk ci. xaw ma bokk ci. boroom xam-xam yi ne xam-xam ñaari xaaj la benn bi mooy miiras benn bi nga ne xaw ma dara xaw ma nag ñooñu ñooy boroom xam-xam xaw ma bàyyi mooy boroom xam-xam ndax miiras boo ko xasee mokkal mu ne ndax miiras boo ko xasee mokkal mooy dajal nga xam-xam yi rek ndax lépp lu yàlla dogal danga koy nangu lépp képp ku yàlla may da ngay nangu lim ko may. yàlla may da ngay nangu lim ko may. koo gis itam da koy bëgg. koo gis itam da nga koy bëgg. su boobaa kay dajal nga. su boobaa kay dajal nga. mu ne baatab xaw ma dara nag moom defe naa ne mooy ñàkk xam miiras rek. ci xaqiqa nag aarifoona yi rey donn ko. mu ne ci xaqiqa moom aarifoona yi yàlla lañ rey donn ko. kenn kenn ku ne del ci moom cër yaa xam benn la wala ñaar la wala ñett la wala fukk la yaa xam benn wala ñaar la wala la wala fukk la la nga doon ci moom moom nga jëmmal la nga doon ci moom rek moom nga jëmmal ndax kenn ci ñun mën na remplacer poto bi mu taxawee jëm ba tey wala bu ndax kenn ci yéen mun na remplacer poto bii ba mu fi taxawee demb ba tey wala si suba ba léegi ndax butéel bi ñu ko solee ndox ba léegi ñu ko toog garde ko yàqu dara na kenn mën na ko bii biñ ko solee ndox mi mu toog fii di ko garde ba léegi yàquwut dara new ci kenn ci yéen mën na ko. ñun kuñ ci dénk ndox 30 minutes boo ko génnewaatee kenn du ko soxla. ñun kuñ ci dénk ndox 30 minutes boo ko génnewaatee kenn du ko soxla. kuñ ci dénk ñam 30 minutes boo ko génnewaatee kenn du ko soxla. kuñ ci dénk ñam 30 minutes boo ko génnewaatee kenn du ko soxla. mu ne kon ngëneel gi la def tax nga nekk ki gën nekkut sa melokaan bi coobare yàlla la. yàlla na yàlla may ñu nangu coobare yàlla amin yaa rabbi maa ngi leen di tàggu nag te di leen ñaanal yàlla itam maa ngi bëgg a am fitna ci sama toogaay bi te ma yaakaar ne itam du ngeen ma ko bëggal ndax def naa lu ma munut te seen jëmm rekk a tax ma def ko yàlla mi ma tiim xam na ko mun naa wax na sërif daal moo ma faj ak tafaa ñaŋ mi ndax biñ ma seetsee laata ne yàlla na yàlla fayanteeg ñoom ci lu baax ku fi ñëw ren yàlla nañ fi del si jàmm ak salaam képp ku fi am soxla yàlla na yàlla faj ko amin yaa ku feebar itam yal na yàlla saafara ko amin yaa rabbi ku ñàkk yal na yàlla jox ko amin yaa rabbi jigéen gu bëgg jëkkër yal na ko yàlla jox boroom kër gu baax amin yaa rabbi góor gu ci bëgg soxna itam yal na yàlla may ko soxna su baax amin yaa rabbi bi jaay rasulillahi barki si Ahmad Tijaani yal na yàlla tàppe xol yi ñi bëggante tey tey jëriñante yàlla na yàlla saxal lii ci kaw suuf fekk ngeen nekk njëriñal way suuf yi ndax alquran moo wax ne kuy jëriñ nit ñi da nga yàgg ci kaw suuf kon nag yàlla yàlla def leen ngeen nekk njëriñ ci kaw suuf mboolem itte yi yàlla na ko yàlla barkeel. mboolem itte yi yàlla na ko yàlla yaa ay mën na ko jox mooy da nga ko boole ci marin yi. ah waaw bismillah leen teg barke mu yàlla yàlla barkeel leen amin ya rabbi mu nga tëj beneen ñaan barkeelu kii dañuy bëgg a barkeelu ci sëtu Seex Ahmed Tijaani mu ne nag kenn ku nekk ci ñun def faatiha teg ci salaatu ala nabi bu waay man suñ paree ñu jox sërif moom itam mu defal ñu ñaan ma ñaan leen ngànt ngeen yeewu ma ma dem noppalu ju ndax sonn naa trop ويا دليل المستجرين ويا خياس المستقيم يا حنان يا منان آمين يا مصوب الأسباب يا فتح الأبواب يا يا بني أسامة يا بني سخي لنا جميع الشام آمين يا حي يا قيوم اللهم ارزقني وتعليم أجمل من خير والنصر والغنى عند الناس يا رب allahuma sallim salatan muhasanatan wa sallim salaaman muhasanan ala sayidi almuhsinin wa imam muhajjalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahuma salli ala sayidina muhammad alfatihi lima uxliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط وعلى اله حق قدره مقداره سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين balaa balaa balaa sëñ bi ñaan nañ def fàtte juróom-ñaari yàlla salaam ñett yow ñu sa benn inna anzalnaahu ñaari sëñ bi yàlla amiin amiin fàtte juróom-ñaari yàlla salaam mu ne nag kenn ku nekk ci ñun def fatiha ak juróom-ñaari yaa salaamu ak salaatul fatihi ak benn inna anzalnaahu ni ñaanal Baay Usmaan yàlla yëkkati ko may ko wér dootu feebarati mukk dund ak ñun ba abadan barki baañas suñu paree sëriñ tëj Al yow eh nee ko na enregistré eh enregistré waaw bay moon ngay nee na gàmmoom bi ñu koy yëgal ñoo ci salle bi yëpp dañuy sàpp seen teewaay ñoom ñëpp Dakar maanaam samedi bi di ñëw ca Dakar bi waaye eh eh Ibrahima